ak jamono pro offre business bu tank dul tënk te may la nga mën di woote di connecté wu te di mën jot sunu service client entreprise jokkoo leen ak seeni client weer bi yépp te di yaxanal seen poste ak Ilimix pro mois 8900 francs bi ngir ngeen mën di liggéey fu leen ni mu leen Orange.